waaw. waa kii lu muy def. ah <laughs> nee na eh ah. def na vidéo léegi jël naa ko vidéo comme ni ma ko jëlee woon vidéo ah. mu doon xasoon nee na dafa juum. jooy na. xam nga leen waaw nee na bi bi maire Diaga di dund. waaw waaw waaw nee na. waaw. c'est correct. waaw waaw presque non non non non non moo gën a kay presque presque dañu ko rek. ma dégg nii laa ilaaha press waaw lii daw na yaram lii daw daw na yaram lii daw na yaram kii amul lu may baalu déggoo ma de kii du mangu déggoo ma du mangu dégg la kii yi mu wax ci ñaawteef moo bari mënu ma ko sax xol eh ndeysaan Presta. Ah, mas cuida aí que eu vou. É não. Porque a família é melhor. E ainda a família. ok jam jam jàmm ko gën. jàmm ko gën dëgg la dëgg la ngeen di bàyyi yooyu. yii nii bu leen ko dugal. saa yi. Amady. ah. bu leen ko dugal. bu leen ko dugal bi bu dee ko dugal la bu dee ko dugal waaye nag ngir yàlla rek. mais Amady yaa gën. mais match bi kañ la kañ lay amaat. may ba doon la. mais Amady dugal na. waaw dugal na dugal tey. non dañ ko gañe mais dugal na ma mais Badiane maa ngi dégg ñu naan yow da ngay sélectionné rek ñu ngi dégg ñu naan yow da ngay sélectionné ay joueurs yoo xam daa daw tey waaw balaa équipe bi ma indi suma équipe sama góol bi ñëwul tey encore sama góol bi ñëwul mi ngi ni ñëw ba nga wax mais mais jëlal ko jëlal ko jëlal ko ITV ah ITV ah ah la set waaw moom Mbaye loolu foog foog ñu wax ci. waaw waaw kañ lañ si wax. non bu la neexee suba waaye bu tënk daa am soo ñu wax ci waaw. incha allah ñu tënk yu bëri parce que daa am yu bëri yu xew ci TikTok bi fan yii te warul waaw. Demba xaali Mbaye dama. ah demal toog kër ga. xaali Mbaye demal toog kër ga nee nañ waa ne noonu da toog kër ga. ah yaa ngi ci xaal. ah ay. ba xaal jàpp yaa wax ci xaal yow. vidéo boobu gars yi dugal gars yi jàpp ni. non loolu loolu loolu du détail loolu loolu ay. loolu du détail la set bi la set bi surtout sujet bi sujet bi sujet bi sujet bi le 7 décembre la. fële ci Adidas Arena ca mhm. Paris mhm. foofu la ñu toog foofu la ñu ne foofu la ñu ne mu ngi tëgg match yoo xam ne bu ngeen bëggee seen yëf neex mhm. ñuy waxtaan ci yëf yi di ci wax di ngeen wax ci la set incha allah rabbi après ah, ah. mais xam nga mënta ñàkk bu nit ñi gisee image yoo xamante ne nit ñi xamuñu ni mu demee te yenn yii di mel frère nekk foofu frère mënta ñàkk. Euh, Ramdan c'est la famille. Amady mooy patron bi encore une fois. ram hmm. ah. Ramdan c'est la famille. keroog keroog dégg naa waa ne ko Amady. fi ñu toll fi ñu toll mooy yoonu Adidas Arena. incha allah rabi. direction Adidas Arena il nous reste que deux mois. ci loolu la ñu war a ne. incha allah rabi. mais le 7 di fubal nii non ñun yàgg dañoo waajal ci waajal la ñun nous sommes nous sommes compétents mais loolu la te day gën a garaaw mariage tey daa daw day gën a garaaw non conférence de presse ñu def ma ak yéen ah, ah non la jox la a ñu taxawee waxal si Armand wala nga jox ko carton rouge <laughs> créé nga équipe. waaw quatre fois mënoo gis. ba pare waa ñëwul de. ay jour yoo xam ne yàlla fa. yow yow sooy jour. am benn boy waay xam nga ne ma. am benn boy waay. ay jour yow sa góor ay jour ba sept jour. waaw su la mais amoon. barke am nga lu soo jóg. non de léegi boo eh. Pago yow yow lii doo équipe nga ma équipe am la. ah du équipe am. I did it. <laughs> no, take that away.